Aujourd'hui, ils se disent que, écoutez, la donne, on risque de tout perdre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut recoloniser. Non, il y a une stratégie de recolonisation. Hein? De beyond, d'une colonisation, ni euh, coloniser, ni contrôler. Non, ils sont dans une logique de dépeuplement. Parce que c'est un entendement, vous savez Africains, c'est un pays qui est donc ñun fi ñuy toog Europe di am ay problème mu gaz di am ay problème mu pétrole di am ay problème mu or ak leneen dem jël seen dëkk yi duñ ko wax ci kaw de dañ kaa jëfee et la plus belle façon de le faire mais c'est la décimation c'est l'élimination c'est l'extermination comment scientifiquement ci lekk yi ci naan bi ci ci air bi ci plein de choses yoo xam ne ñun souveraineté dëgg muñ ci génne te ma wax ko fii yàlla na yàlla may fekkee kal yàlla na yàlla sàmm Sénégal ak sénégalais yàlla na yàlla sàmm africain Afrique ak africain parce que aujourd'hui blocage bi ñu am ñoom c'est que les peuples commencent à comprendre davantage te képp ku yee peuple bi bëgguñu ko ñoom waaye dañoo fàtte yàlla yàlla àdduna bi lépp ay cycle la la Mésopotamie a existé l'Abyssinie a existé l'Égypte ancienne a existé, la Grèce antique a existé. Ça veut dire quoi les Romains Rome était puissant adduna bi noonu laa doxee un jour viendra l'Afrique ba au-dessus carrément au-dessus te mënuñ dara. dafa am dafa am su fi ma doon dem en fait par rapport à ce déjeuner du travail c'est que on a constaté quoi que le président déjà au niveau du contenant ci apparence nuyoo teg loxo du Macron dugal na loxo bi ci poche bi Il en a fait, hein, pour lui. Macron a utilisé, veut toujours une image, montrer aux autres Africains, parce que la communication là, elle est destinée à la fois aux Africains, en général, mais aussi au reste du monde, pour dire à l'Europe, par exemple, écoutez, je tiens toujours le Sénégal, je tiens toujours la Côte d'Ivoire, je tiens toujours l'Afrique de l'Ouest, je tiens toujours le Sahel. ñoom noonu la ñuy xalaatee noonu la ñuy fonctionner noonu la ñuy réfléchir Sahel boobu nga xam ne dañ la naan dara amu fa mais population yi ñu ngi gën di jur danger la l'Afrique sa démographie ni muy yokkoo c'est dangereux oui c'est dangereux pour eux mais c'est une force pour nous ce déjeuner de travail là finalement on se rend compte que vaccin bi d'accord c'était le prétexte pour y aller ce sommet là mais finalement le sommet a été occulté par le déjeuner de travail finalement on se rend compte que en fait l'objectif c'était que waa ji na ñëw rek waa ji moom kilifa bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo war a xam ne aujourd'hui un il faut que sénégalais yëpp àndandoo ñu protéger ko ak dégg il est super mais quand on dit qu'il faut protéger que le peuple doit protéger son leader son président c'est faire ce que les burkinabés sont en train de faire dem wër palais ba ne kenn du fi coup d'état dañuy sécuriser suñu président parce que amal na leen njëriñ askan boo leen nekkalee rek ñu sécuriser la boo leen taylee nag ni nguur yi fi nekkoon surtout nguuru président Macky Sall tayle askan bi bàyyi leen ak seen bopp ñu xeex la aujourd'hui celui qui doit être vraiment super tranquille c'est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nit ñu ko wanee woon ci campagne ci élection ci xeex ba mu dugg kaso ak lépp ñu continuer ci mouvance boobu te loolu li ko say dimbali mooy dagg cordon ombilical bi ak l'ancien les collaborateurs de l'ancien régime ña nekk présidence ña nekk primature ña nekk ci gouvernement bi ñëpp il faut les mettre à un niveau inférieur jarul dàq am problème ay sénégalais lañu mais nañ leen yóbbu ci niveau d'opérationnalité maanaam ñaari niveau la entreprise organisation état la partie stratégique la partie opérationnelle ñooñu nañ leen yóbbu niveau opérationnel nga xam ne dañ leen di wax def leen ñu def niveau stratégique bi on amène des personnes de haute pour la sécurité publique nationale loolu président bi ci war a le premier ministre daf ci war a veiller du gouvernement daf ci war a il faut que ñu moytu accointance yi sama gaayen la sama copain la ñoom màggandoo non non lui il est fiable ñi leen doon informé bi ñu nekkee ci opposition bi nekkoon ñu fiable te wóor te dëggu te gëm principe bi oui il faut les garder mais ñeneen ñi sa des il faut faire attention quand bien même ñi leen doon informé itam il faut savoir d'une haute profondeur alors aujourd'hui déjeuner de presse boobu lañ fa waxtaane lépp dina am lu ñuy wax ci kaw dina am loo xam ne ci suuf la li gën a important nag mooy la ci suuf quand on parle de base militaire fan fan la ñu France teg fan la ñu demoloon ba naan dañ fiy bàyyi cent soldats pour lan pourquoi ils doivent garder les bases pourquoi ils en ont besoin c'est chez nous ici nañ def échange cent soldats français au Sénégal cent soldats sénégalais dans une base en France dañ ko def bu leen ko waxoon léegi ñu bañ non mais pourquoi non on a besoin de sécuriser les Sénégalais qui sont ici ñoom dañuy prétexter oui les Français qui sont en Afrique qui sont au Sénégal leen loolu la base américaine bi gën a importante en Afrique c'était au Niger secrétaire d'État Amérique dafa wàcc Niger jaay leen doole wax kii ne imposé wu ne dafay gis président Abdourahmane Tiani gars yi ne ko doo gis coow li ne kur ñuy baagante dugg génn ti def gars yi def ñoom ñu def kaf ñi def dëgg nigériens yi finalement dañoo xëy ne leen vous dégagez gunge leen ñu génn base américaine bi génn base française bi génn lu tax fu ñu ko teg pour un petit pays comme le Niger parce que dañoo changé prisme bu ma àndeek yow France ay siècle avancé wu ma ma bala fa ànd ak sa morom xulil ma bala fa ànd ak sa moroom awe maa la wax aw yéen ñi ñoo seetaan fii ci M4 ga bon jëkkër ja bon baal mu dem jabar ja bon baal mu dem mook ba ñëwem du dëgg lii bu jëkkër bone baal mu dem bu jabar bone baal mu dem ça veut dire quoi mais est-ce qu'on continuer à vivre comme ça sunu ay doom setaat setaat war a daal nekk ay jaami France ça doit cesser et ça le président actuel je pense que ci condition yooyu la falo il le sait donc il est hors de question ñu ñuy dugalaat ci loolu di ñu dugalaat ci ay vaccin di ñu dugalaat parce que euphorie bi sénégalais yi àndal ak cette joie là bi nga xam dafa jëm ci des décisions fortes quand on voit Serigne Gueye Diop qui fait face aux meuniers ba ñooñu dellu gannaaw quand on voit El Malick qui fait face aux transporteurs ba ñu dellu gannaaw et cetera et cetera les gens veulent cette sécurité le peuple veut le peuple ne veut pas qu'on le laisse à lui-même mu mel ni ko amul baay amul yaay amul tante donc la donne change et la France ne veut pas que la donne change le discours il est ainsi la France ne veut pas que la donne change les Africains veulent que ça change et quand ça change mais day ànd ak sécurité aujourd'hui la sécurité c'est quoi on doit collaborer avec tout le monde oui on collabore avec la France on collabore avec l'Angleterre l'Allemagne ak keneen ak keneen on collabore avec l'Inde on collabore avec l'Amérique les Amériques, on collabore avec l'Amérique du Sud, on collabore avec tout le monde. Collaborons d'abord entre Africains, menons nos forces, nos combats ensemble, sécurisons le Sahel ensemble, mais dafa laaj nag une force en plus et en surplus xam nga moo la bon su ma ko waxee les les pro-français yi nekk ci dëkk bi di ay complices yu ñuul ak complices yu weex xam la ñoo wax dañ naan saa ay pro-russe la non on ne peut pas être pro-russe moi je suis pro-sénégalais pro-Sénégal et sénégalais pro-africain par contre su ma ànd ak faale woo ma du mala la nawloo ma ànd sa morom la Russie su nawloowee Afrique nawloo Sénégal ma ànd ak moom looloy dëgg looloy dëgg qu'est-ce qui s'est passé en Centrafrique depuis Jean Bédel Bokassa ba ca la ko jiitu rayante ray ray ray ray ray les instructeurs russes ñëw ànd ak Faustin Touadéra xulil Centrafrique sécurité calme population yi nekkat ci jàmm ñuy jëm a seen ay jamaa ak seen kii tentative de coup d'état deux à trois yoo xam ni jëm nañu rey Faustin Touadéra dégâts ku nekk ci ginnaaw France kan moo bëggoon rey euh, Assimi Goïta France kan moo bëggoon coup d'état Ibrahima Traoré France boo ko waxee nag munaafiqu naafiq yu bon yi yi les traîtres les jam yi nekk suñu biir xam lu ñuy wax il faut des preuves li ngay wax ni waxi kii ñenn ñi naan la non changer le disque tu nous emmerdes et ce sont les traîtres là seen ay maamaat maamaan ñoo jur esclavage ñoo ñu doon jaay sunu maam yi wor leen trahir leen tubaab di leen jàpp ñoo ñoo fi seen sëtaat yi ñoo fi nekk ba tey di trahir askanu Sénégal ak Afrique loolu nag dafa war a dakk et pour mu dakk il faut que le président change les choses et comment j'imagine qu'il a dû être ferme ci waxu suuf bi j'imagine et j'ose imaginer et l'espérer parce que Macron bu tëbee nangu saa yi c'est parce que waxtaan nañu waa mais problème bi du loolu prenez vos affaires et partez bi guerre 39 45 jeexee ñoom tubaab bi danoo ne africains yi dégagé ñu ne leen dégagé africains yi war a dem xam nañu africains yi xam nañu lépp bu ñu demee nettali ñu rey leen ñu faat leen ñii Strasbourg Alsace ñii feneen ak feneen Normandie ñii feneen ak feneen ñëw fii ba caaree ñenn ñi ñu indiwoon nax leen ñëw ba fii faat leen waaw loolu yëpp pour bañ ay traces ils sont dégueulasses et et mécréant waaw ku la def loolu dina la dina la développé la kooku kooku mën ngaa gëm aide publique au développement bi depuis ba ñu juddoo ba tey nga naan aide publique au développement tey la ñu gën a suux réfléchissons les Sénégalais ont compris en tout cas une bonne partie la donne change ça évolue France partenariat public privé partenariat leneen ak leneen on n'a plus besoin d'aide nous avons trente cinq à trente six voire trente sept matières premières li ñu am ci alal kenn xamul mu toll bu si soxlaa ñun ñooy teg condition et on doit l'imposer le peuple doit faire bloc autour du président de la République autour du premier ministre autour du gouvernement du Sénégal pour faire face sécuriser la la son élection dem ci ci changement et le président pour sa visite bi mu ñibbisee ñu dóor ko mbiru général Kandé c'est une façon de le poignarder au dos j'ose pas imaginer que ba que Bassirou Diomaye toog na tubaab bi di ko wax loolu mu kaa nangu yaakaaruma ko parce que on a vu ce qui s'est passé donc je me dis ils l'ont fait sciemment ñenn ñi ils disent est-ce que du Bassirou dafa bañ lu mu bëggoon moo tax mu def lu ni mel kon ça veut dire que ñoom dañuy ñëw ne la bàyyil ma continuer di la nax nga ne wax d'accord y a pas de problème ñu ne la bon on va s'occuper de toi de ta famille on va gérer y a pas de souci si tu as besoin de visa chaque année on va te donner des quotas tu gères tes sa askan wala ngan leen déedéet du ma trahir sama askan ñu ne la on va te waaw léegi nag peuple bi mooy taxaw nag